ak El Hadj Ahmed Aïdara bismillah fa président Macky Sall jëm ak waa parti démocratique sénégalais yii ndox amu fa marte itali maître Ousmane Ngom ci la quotidien yéene kaay ne ñun daal léegi ku ñu ko samba ñu saañ la ba mu tere bien waaw waaw ndaxte nag am nañu fukki ak ñaar bu ñu namee nag jaxal réew mi maanaam kenn kon dootu ko jiite acca maître Ousmane Ngom ci yéene kaay ma jamal jàngi ne sénégalais seen bopp xam nañ ne kon mbir mi doxul mbir mi doxul dund gi seer na njëkk yaa ngi nii du yokku de dee sax kon gars yi digée woon nañu ko gouvernement bi ci boppam kon kon dund koo amul dara lu mu def ludul jël kon juróom-ñetti milliards milliards ci li mu wax ne dañuy def kon ab subvention ngir dund gi nga xam ne maanaam day yokk nii muy xaw taxatee mi daal yow ca jamono joojee ñuy wax juróom-ñetti milliards Abdoulaye Wade lu ci toll ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar trois cent soixante-douze milliards laa ilaha illallah la defoon kon ngir bloqué kon dund gu seer googee njabootu Abdoulaye Wade nag bloqué kon topp gi nga xam ne kon dañ leen koy topp la ñu bëgg dee le pays au quotidien ne tribunal boobee nga xam ne la ñu fi ne kon daal lewul di cour de répression de l'enrichissement illicite waaw nañu yoon wi nga xam ne kon moom la ñii daal di kon jël nee nañu jekkul rafetul parce que ca jamono joo xam ne kon gendarme yi ñu ngi doon Karim Wade mais procureur spécial ba Aliou Ndao ak ka ñu toftal ca moom waaw ña toog ni saax jàkkaarloog enquêteurs yaa Karim i maa la ko wax réew mi quotidien ne waa PDS kay nee nañu ñii daal gis nga dictature gi nga xam ne kon moom la ñu jógte ma ngay raam ca ñag wala te bu fa amee du fa gaaw a génn ba noppi nag sulli nañu kon ay mbóot yoo xam ne kon maara day taali ci déglu bi nga xam ne kon ñu ngi ko doon déglu Karim Wade gii ca gendarmerie ba bu ñu sukkandikoo ci waa PDS ah Alioune Ndao procureur spécial ba ca boppam moo doon perturbé kon liggéey ba nekk fa di perturbé kon audition ba yaa nga xam ne moom lañ toftal ca moom nag moom Alioune Ndao kon toftal ca moom waaw substitut ba moom la tuumaal ne téléphone portable am daal la yor di jokkoog ñi nga xam ne kon ñoo nekk biti di leen jox kon direct nga xam ne moo xew ca biir audition ba démocratique sénégalais naqarlu nañu bu baax baax yoon wii nga xam ne kon moom la ñu jël te ba histoire enquête politique amee ba léegi ni le lii kenn mësu koo gis te lii nag attention day tax ñu am kon am xel mu ñaaw ci suñu yoonub réew moom na boppam wala moomul boppam di indépendance de la justice waaw waaw Aliou Sow nekkoon fi ministre ci le pays au quotidien ne Karim Wade mi la royukaay la républicain la parce que saa su ne li muy wax daal lii la partout où je me trouve dans de la justice de mon daal daa mës di wax ne ak fu ma mën a nekk ci àdduna saay bu ma suñu yoonug réew wooye dinaa dikk kon wuy si Aliou Sow ministre décentralisation woon ne xam nga ne kàdduy Karim yoo yee uute na ak yenn ci ay kilifa yi nga xam ne kon ñi ngi fi di xamle carrément ne wuyu si wuñ tey te wuyu si wuñu ëllëg ay banqaas yu bokkoon ci suñu justice su réew maître Ousmane Ngom ci la quotidien yéene kaay ne ñin bare nañu de ngir wuyu ji haute cour de justice pour muy leer la solo yéene kaay ne haute cour de justice ca laalas lëf de ah waaw ci libération na ay jege ñaaleem nañ ma téye ci réew mi ba saay bu leen neexee dégg parce que man am na temps i eh, eh, eh. tribune yéen a kaay ne xanaa xamoo am na ci sax yenn yoo xam ni da ngay jàpp ne lu bon la fekk baax na ci nit ka ah moo dal Karim Wade maa la wax li de convocation bi ci boppam booy xool ba ca biir ab mbetteel sax kon la jur ci taxawaayu Karim Wade ca jiite mbirum leader ci parti bi parce que lii yow Karim Wade xoolal lu ni mel mosu koo am parti bi la mu desee kës néew nga xam ni kon daa fipp sax ma nga woon ca bërëb ba libération yéene moom Karim Wade googee ma nga jëm kon ca Touba tey tribune yéene kaay ne tey ji mooy màggalu Serigne Abdou Khader Mbacke Dia imaamu imaam ya Balla Aïssa Le Soleil yéene kaay ne Macky Sall day taxawal na kon génn kuréel kër gu bees la waaw ngir kàttanal kon suñu kom koomu réew tribune yéene kaay ne juróomi téeméer ci ay milliards moo fa fas yéene dem de ah maa la ko wax ngir dunduñu askan wi lee libération yéene kaay ne conseil économique bii di ñëw nii juróom fukk ci ay doomu aadama ñoo fay ne quatre-vingts membres benn président ngir luñ joxoon dagg l'officier yéene kaay ne alal ji ñu am ci lu jaarul yoon ah remboursé rek wala bon ca kaso ba yéene kaay yoof gi ne Macky Sall day fi mu nekk ni le safaraa ko wër di jax-jaxi maar jëy taali maa la wax lii yow dundinu askan wi tar ba mel ni tiiraay ba mel ëttu politique bi mi ngi jax-jaxi xoolal ma dund gi ni mu seere <laughs> moo ni Macky Sall nag ca campagne ba day moo doon xam le ne Mali gii jege ñu nii ak ñeen la fay jar carburant te dem Mali googee nangam sangam waaw te ñun ñi ngi koy jaayee ñaari téeméer yu manqué ñaar fukk waaw ah loolee du yoon Macky Sall nag ba mu dikkee ak léegi ni la France daal di xidéen yéen a kaay ga yemu ca nee na xoolal ma wàllu mi ba léegi ni la université a bañ ne duñu tuxal yenn kon ci nekk ci daara yu diggu doomu yi banque seeni loxo wàññis lëf ci heure yi nga xam ne kon dañu koy jàngale di wàllum débaraya gaz ca yàlla coowal cantakun yaa nga ne wërati kon Macky Sall ëtt politique baa ngi jax-jaxi laas ne haute cour de justice day a ah. jaxalaat nañu ko de boyal nañu ko de attekat wii di a Kandji day a ah. <laughs> ngir dagg ay bopp rek karawaase kon waa parti démocratique sénégalais moom laas ne convocation yi nga xam ne kon procureur spécial bi koy def tey am na lu mu maar tey taali ay effets collatéraux tey bu njaay a ah. mi nekkoon directeur u kadar su day na kon l'observateur journal te a maa la ko wax ba pare tey l'observateur mi le mu fay ko lu ci tolloo téeméer ak juróom fukk ci ay millions la ilaha illallah te duwaay dese en kay parce que dañu sosal diffamation ba pare kon yàq sama der tilimal ma ki nekkoon directeur cadastre day di tay bu njaay mi ngi sàkku sax journal l'observateur attekat bi ak journal bi fii ak weer bu journal bi kon génnati la ilaha illallah tay bu njaay daal jàpp ne ne la ko bindal ca boppam loolee moo dul dëgg laas nday faatu sek ak ay safal caam man sama liggéey mësu ñoo yëkkati ay daan lal ko sama ndodd di sanctionné te sama liggéey mës ta jàdd ay mbirum njuuj njaaj mësu ca am <laughs> ca yàlla l'officier ne kay ne kilo gerte ga day léegi ñeen fukk yu manqué ñaari dërëm la ñu koy bëgg di jëndee muy xibaar bu neex ci baykat ya Sud Quotidien ne baykat yi day day ñu gën a riis dem naa ca lamb ja suñu lamb ne Tidiane Faye ak Zos léegi leer na fukki fan ci weeru mars bii di ñëw la Papa Sow Baye ma njoon léegi leer na ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars la <laughs> xam nga ne ne lambi ren ji ah. waxuma la sàjj de waaye ca jax-jaxi la jëm balaa may dee ñu may découragé naan ma yemal ci wax maa lànk ba wut ku may lànkale Tidiane Faye moom non du ma bëreeg moom parce que daanoon na ma zos neexoo naa ak moom Papa Sow neexoo naa ak moom bàyyi ma njoon déet daf maa xaw a sut daf maa xaw a daf maa xaw a sut daal